jërëjëf sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdu Xaadar moom Xaadim Rasuul moom la mboolem yéen a kaay ñu xëyandoo la xëye l'Observateur Les Échos enquête ba ci le quotidien foo ca dem fekk fa ñuy def ci internet bi di ca sàllawlu yoonu murit loolee la doon naqarlu ci ndajem CRD muñ doon amal gi ci teewaay délégation bu gouvernement bi fa la ne fan yi ñoo bi ñoo xam ne dañuy jóg ka gàttal aka yoonu murit internet bi loolee nag yéen ñi jiite réew mi bu ngeen ci jugul jël ci matuwaay faj ko ñun dinañu ko fajal sunu bopp ndax ñun ay murit lañu amuñu ku dul Serigne Touba moom la ñuy noyyee moom la ñuy yaakaar tay ak ëllëg Serigne Bamba fawul folowul enquête nañu Touba ñoo ngi dànkaafu saay-saay yi gàkkal yoonu murit Serigne Bass nee na ñi koy def nañu ko bàyyi ku ko ci bàyyiwul loo ci góobee nanga ko gar ne duñu bàyyi nit ñi ñu dëkkee dunde ci réew mi nu mu leen neex di wax lu leen neex te dara du leen ci fekk ku waxati ci yoonu murit lu àndul ak ite gin taalibe yi danañu ko diggaale ak yow moom sang bi di Cheikh Bass Abdou Khadre la mu wax démb ca CRD ba source waa ñu ko wax na mu ko waxe mu di li gaay di def bu dakul pare nañu ngir jaayante sunu bakkan tas nañu Touba Ousleton te kat noppeeg maslaat yi ñu nekkee woon dakkal nañu ko nee nañu léegi dootuñu mayiti kenn muy xotti woon may murit baa muy sàllawlu yoon wi lu quotidien nañu waxteel mujj rafet Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des mourides gi nee na liggéeyu Serigne Touba du duñu ci du duñu ci kaf lu mu laaj dinañu ko ci joxe dinañ ko ci def ngir taxawu ko bu jaree sax ñu bàyyi ca bakkan danañ ko def li ñu doon def démb mu di ndajem lancement institut pétrole ak gaz soleil national xëy na ko ñenekaay bi nañu ci teewaay njiitu réew mi Macky Sall woon ba muy discours kaay ne kër googee mu di institut pétrole ak gaz ñaar la ciy séntu compétence ak excellence maanaam xarañ gu mat sëkk ak liggéey bu mucc ayib laasi ne kaay ni ñu njiitu réew mi yamul foofee ca waxam ja ndax ma nga doon dànkaafu gaay yi nee na leen di dem ciy gerew ak ki defi ñaxtu droit boobee amul ca institut gaz ak pétrole te li ma leen wax du ay caaxaan booye boo ngeen jàpp ko bu baax a baax ginnaaw pétrole beeg gaz bi nañu wax ci ndox mi lëmbi réew mi mi jamono ji bil sursuwa journal bi xamal nañu ne contrat d'affermage bi ñu xañ SDE xañ ko Veolia jox ko waa Suez mbir yu luusa nga ca benn ca moo di waa SDE li ñu doon laaj moo gën a woyof gën a yomb fop li waa Suez doon laaj taxul ñu jox leen ko dañ leen koo xañ boole cee kit jaruta sax doon ko takke ci wàllu kalkin ngir xam ne at mu yàlla sàkk dinañu xañ consommateur bi ñeent fukki milliards yu mu mënoon a yaxanal l'observateur nañu li waral moo di Suez gi ñu bëgg a Sénégal Sénégal sinum xel dalul ci mbir yi Mignane Diouf ak ñi mu àndal bëgguñu contrat ndox bi teere ji ci loxoy Suez moo tax ñi ngi koy xeex lu ñu mën te nee nañu duñu toqi duñu yox yoxi daañu ci dem ba jeex waaye contrat de fermage bi moom duñu toog di seetaan mukk ñu koy jox waa Suez gi nga xam ne réew mu mu dem ci àdduna bi bàyyi na fa coow bàyyi na fa mbamb bu dul corruption maanaam guerre di mbiri scandale waaye réew mu mu jaar rek bàyyi na fa nun na ko naan ñu ko wax lii bu fale bu Sénégal baax ci Turquie loolee coow laa ngi ne ci coppa yi nekku ci mel ne honorable député Mamadou Lamine Diallo bu mouvement tekki moom ma nga ciy jébaane business bu toll ci ñaar fukki junni milliards ak juróom-ñaar ñaari nit yi nekk ci xët mu njëkku réew mi quotidien ràññee nañu leen lool ci réew mi mu di Cheikh Tidiane Gadio ak Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies journal bi li muy laaj moo di kii di Macky sàll lu mu àndal ban sekkere la toogaale ba tax heure bu ñu xëyee dégg nit ku koy jàppale koo xam ne kenn foogul woon ne bés dana ñëw mu dem jàppale ji président Macky Sall yéene kaay bi nañu dégg nañu bu yàggul Moussa Sy mu ne dafay dem jàppale ji Macky nit ñi coow loolee ba bàyyi riggalaguñu ñu dégg Cheikh Tidiane Gadio mu ne doonatul candidat ci présidentielle 2019 yi day dem jàppi ci candidature président Macky Sall réew mi quotidien ñu njiitu réew mi Macky la àndal nañu ànd dem ci record yéene kaay li mu xëy ci xëta mu njëkk bari waaye nañu xooli kàdduy docteur Fedior ya fa nekk docteur Abdourahmane Fedior mooy médecin bu la